Mesdames, Messieurs les journalistes, merci pour votre présence, votre pugnacité et votre engagement pour la promotion de la démocratie. Je ne tiendrai pas le crachoir très longtemps, d'autant plus que Honorable Détiéphal et le doyen Habib ont dit l'essentiel. Je serai bref et succinct. Au vu de ce qui a été dit par l'honorable Dekefal et le doyen Abipsi, et au vu de tout ce que nous avions constaté, assisté depuis l'avènement du président de la République aux responsabilités suprêmes, vous constaterez avec moi qu'il vient de tuer définitivement la démocratie, l'état de droit la liberté de candidater à des élections libres et transparentes. Et tout cela pour une boulimie d'un troisième mandat qui devra être précédé par une candidature, par une troisième candidature. Et donc loolu lañ leen bëgg wax moi nous bah, mu un troisième mandat loi yittelu constitution yittelu règlement yittewu dara intéressé la seule chose qui l'intéresse et qui l'anime c'est de pouvoir briguer un troisième mandat d'ailleurs lolo motax binga bi nga ben radio internationale muy wax ni liste bo xamantene qui ni respecté wul parité du bok pour wax que ne li nga ni les sept pyromanes du conseil constitutionnel wax nañ ko yitté lu moom mom liko intéressé won moy li mu wax ñu def ko c'est leur motivation leurs explications leurs arguments ne l'intéressent pas bu demee bay wax waxu parité ci liste nationale coalition yewi Askan Wi c'est parce que xamul sax sax les décisions qui ont été rendues par le Conseil constitutionnel puisque ça ne l'intéresse pas donc lolu li ñu ci bëgg wax modi Macky Sall démocratie Macky Sall la justice la liberté de candidater c'est la constitution bi salfaañe une le code électoral Nous, nag loolu nous ngi wax askanu Sénégal ne leen bu ñu nous fa jëm commencé na la tyrannie la dictature le tyran le dictateur ce qui est le plus important dafay dem ba ne dafay exprimer ses caprices te que nous ñu toll est-ce que 62 ans après les soi-disant indépendances de la République sénégalaise que ñu nekk di wax ay processus électoral c'est seulement au Sénégal que nous constatons ne 62 ans après ñuy wax ay élection inclusive. président yi ko jiitu lu mu bon bon côté boobu amoon na jéego yuñ ci def lu mu bon bon amoon na lu ñu doon préserver waaye le président Macky Sall bi mu ñëwee lépp lu ñu amoon ci acquis démocratique daf ko jël sànni ko teg ko fële parce que li ko yitteel mooy bëgg-bëggu boppam loolu nag nañu wax sénégalais yi ne leen ñoom ci seen bopp ñoo ko war a mën a dakkal coalition est Askan Wi dafa sentinelle fay alerter ci terrain bi bi waru ci parce que la coalition Yewwi Askan Wi di ko bopam koy askan wi koy suñu ay koy suñu ay suñu ay lañ koy ngir avenir au Sénégal bu tranquille ngir avenir au Sénégal bu paisible

parce que li ñuy nous bu ñun ñep sétané ba mu jall moi, je Macky Sall non seulement dina forcer élection yi ñi nga ne ñom la ci bëgg puisque bëggu ci dem ak Yewwi Askan Wi xam bu ci démé ak Askan Wi danañ ko gagner. té bu ko eu Askan Wi gagner dina à mu cohabiter ci liko ci ay at ci mandature lolu la xam ko tax amatul te xeex bii nga xam ne nii ñu ngi nekk di ko suñu xoolee ba Macky Sall def ci lu ko neex ñu croiser suñu ay loxo askan wi toog di ko seetaan bu mu leen bett comme ni ñu ko waxee mu jaxase constitution bi changé ko ne bourle. la bu mu leen mu jaxase constitution bi changé ko ne empereur la gis nañu ko ci ay dëkku africain puisque nguur moo mel noonu boo amul benn éducation bi vous amul ben encadrement bi vous amul ben environnement bi da ngay nek ci ben bo xamné ni sa bëgg-bëgg rek ngay gis nañ Macky Sall jamono ñuy wax bulle la di wax du du parti politique yi du société civile xeex bi du xeexu euh, les les journalistes donté yéen lu ngeen man ci promotion démocratie yéen a koy def waye xeex bi xeexu Sénégal yépp la xeexu askan bi yépp la donc ñu ngi wax askan bi ne nañu jël sen responsabilité nañu wàcce ci terrain bi puisque wax bu bari jeex na dëkk boo xamante ne nii loi amatu fa dëkk boo xamante ne nii li constitutions, li li li constitution wax du ko respecté de boobu ñu ngi nekk ci insécurité mom le suñu maam Cheikh amadou tijani yi doon wax né dëkk bu amul loi dëkk le bo xamanteni dëkk insécurité le. donc jappal leen ne Sénégal fi mu nekk mi ngi nekk ci insécurité président bi ñu am li ko yitteel mooy bëgg-bëggam li ko yitteel mooy li ko intéressé li Sénégalais yi bëgg yonam nekku ci gis ngeen les premières les, les denrées de première nécessité ni mu yokko yonam ci ça ne l'intéresse pas gis ngeen insécurité bi am ci dëkk bi loolu yittelu ko ça ne l'intéresse pas et malgré ce, cette, cette ambiance d'insécurité nee na na avion dem Russie wër dëkk yu ko neex ne dafay ñaani pour ñu dimbali ñu bu ko defee mburu dootul ñàkk ci askanu Sénégal loolu mooy waxu lan ñu ngi rey sénégalais yi ñu ngi leen di rey comme ay weñ rey gens ñu leen di rey yittelu ko li Poutine ne ko mburu pour sénégalais yi mën mais balaa ngay lekk mburu fang nga nga dund balaa ngay lekk mburu na fekk nga am am am am am paix boo ne ni la permettre nga insécurité bi am priorité muy dem di auprès de Poutine jóge fa dem France demat ci yeneen dëkk la France diaspora bi am nañu seen fulla am nañ seen fayda gis nañ nañ ko ak accueillir te ñu ngi leen di wax diaspora bi sax leen ci loolu bu leen ci jóg mu heure bu wàccetee foofu teeru leen ko ak slogan yi ngeen ko teeroo dafa jaxasoo nag loolu yi faut sénégalais yi xam ko fi mu nekk nii tiit na tiit gi mu tiit moo tax comme ni ko doyen Habib waxe mi ngi recevoir ku nekk dem na ci ba recevoir ki nga xam ne nii moo nekkoon son insulteur officiel nous recevoir que parce que de bëgg nee sénégalais qui di réseaux sociaux Mais mais sénégalais si coup, ko bëggul physiquement ba di les réseaux sociaux yi la Macky Sall les sénégalais l'ont vomi il faudrait simplement qu'ils s'en rendent compte avant qu'ils ne soit trop tard li ñu koy ñaanal qu'il sort par la petite porte parce qu'il n'est plus possible qu'il sort par la grande porte mais dynamique est enclenché fu mu nar qu'il sortira par un trou de souris même la petite porte, il ne, lui sera plus possible d'y sortir. donc nous avons dit di ku nous ni ñuy wax wax bu bëgg wax ñu wax dictature le Sénégal Sall ci tyrannie le Sénégal ñu ngi rassemblement bi nga le 17 vendredi prochain né sénégalais le 8, tous les Sénégalais avaient répondu à l'appel. C'était une démonstration de force. C'était une façon de montrer au président de la République que les Sénégalais ne le veulent plus. C'était une façon de lui montrer que son régime est en fin de règne. C'était une façon de lui montrer qu'il est incapable, il n'a qu'à céder sa place. Et on lui demande de céder ça le plus rapidement possible, de ne pas attendre en 2024 loolu la ñu bëgg ñu répété waat ko le jan le le 17 juin le 17 juin vendredi prochain boo leen déggee ñoom tiit bi ñu tiit bi ñu rassemblement bi amon le 8 ñu tàpp de nous wax ne nous organiser nous mettre rassemblement suba waaye fan la mujj xam nañ ne kenn nous leen xam nañ ne kenn topp leen xam nañ ne kenn dégluwu leen. Moins le gouverneur a outrepassé ses attributions en sortant un communiqué ou un arrêté, je ne sais pas c'est quelle, nature le document qu'il a sorti, en plagiant le CNRA pour wax pré-campagne de Nunec, propagande bëggul bogoul, bëggul lu Ken xamul pour wan c'est un républicain soi-disant républicain mu ne li gouverneur bi wax dama ci sukkandiku donc sama tournée économique bi du ko def waye xamna na ne bu demoon fofu la ka fay fekk cette coalition Benno Bokk Yaakaar ñu waxit ñom ni li gouverneur bi génn motax ñom duñu def sen rassemblement waye ñom it xamnañ bu ñu demoon kenn du leen wuyu sénégalais yi xolatuñ leen sénégalais yi bëggatuñ leen té so démé ba ñi nga ne ñoom ngay représenter ñom ngay jité bëggatuñ la xolatuñ la faaletuñ la nga gëm yalla nak jox leen tablier bi te ñi nga xamné ni ñom ñoom la sénégalais yi bëgg ñu dem élection nga bàyyi leen ñu bok waaye di jëm ci élection bo xamante ni mom ci bopam té lolu c'est c'est le caractère c'est la marque de tous les dictateurs et de tous les tyrans ñom ñoy choisir ñi bok ci élection xol leen ko ci aduna dictature yi ci bopam ñom ñoy taamu ñi nga xamné ni ñoy bok ci élection et ci Macky Sall lolu fofu li ñu tollu tay ñu ne Askan yi du bok honorable Déthié Fall du bokk ci élection yi Ousmane Sonko du bokk ci élection yi doyen de doyen Habib Sy du bokk ci élection yi Chamet Tidiane mi représenté Serigne Moustapha ci coalition bi du bokk ci élection yi Khalifa Sall mom daf ko ne sax yow mom waxuma sax bokk ci élection yi waye do ci sax sax investir donc lolu nak mom néna mom mom justice am moom moom direction générale des élections yam mom mom ministre de l'intérieur am waye nak na xamné momul askan wi na xamné momul peuple Sénégal comme reine démocratie reine liberté de candidater à des élections reine l'état de droit reine la justice peuple bi ci boppam ñoo mën a dekkil yooyu yëpp te c'est à votre portée donc ñu ngi leen di ñaan di leen wax ne leen le 17 juin prochain vendredi plus précisément que toutes les tous les Sénégalais toutes les couches sociales de ce pays nous ngi rendez-vous à la place de la nation Nous commençons qui menuisier qui ci bi ci ci napkat bi ci samkat bi transporteur bi qui banquier bi courtier bi assureur toutes les couches toutes les professions nous ngi rendez-vous le vendredi 17 juin à 15h de 15h à 19h pour nous gën confirmer Macky Sall bëgg bi nga xamné ni mom lañu bëgg moy Yewwi Askan Wi bokk ci élection yi té mom mu abal ñu pour de bon wasalaamualeykum wa rahmatullah merci je donne la il y a les jeunes maintenant il y a les jeunes ñu ndaw yi on commence par Mor Diaw